asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Moussa Seydi way juramu góor Sëriñ Mouhamad Lamine Seydi way juramu jigéen tudd Soxna Faatu Mata Daraame mi ngi am fukki at ak juróom benn gane àdduna le deux deuxième mois 2006 sëñ bi dañ lay bàyyeeg bàyyi sëriñ mu ñëw jëw ci ay laajam incha allah min qawlihi taala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 وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا آياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ñu jàll ci dongo bu jigéen soxna Khadija Seydi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Khadija way juróom bu góor mi ngi tudd Serigne Moustapha Seydi way juróom bu jigéen tudd soxna Mariama Konta mi ngi gane àdduna le 16 sixième mois 2008 mi ngi toll ci fukki at ak ñeent soxna si ñu bàyyi yeelaak bàyyi sëriñ mu ñëw ak yow ci ay laajam ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا حسبك sadaqallahul aziim takbir allahu akbar soxna Xadija jërëjëf sëriñ Dali Ñas jërëjëf kilifa yi nga xam ne ñoo doon tari téere bi yàlla bi doon gaaral lenn ci téere bi ginnaaw ba nga xamee ne tare nañ ko ba mu jeex ca daara yi ba noppi kon lii ak gaaral la rek wone lenn ci lañ doon tari waaye comme doon ci ñoom tari na kaamil bi ba noppi loolu lu mat a leeral la mbokk yi ba léegi bokk na ci délégation yi nga xam ne ñoo fi teew Serigne Salihu Ndiaye mi ngi fi délégation CSSE Serigne Khadim Ndiaye imam nekk déclarant responsable moral bi ànd ak professeur Sakhir mbay ak docteur Ibra Fall sëriñ Maxtaar Jenn daayiratu Hizbut Tarqiyyah moom it teew na fi ak délégation bi mu àndal sëriñ Afia Bousso sëriñ Daara teew na fi délégation littorale et environnement délégation littorale et environnement nee nañ seen taxawaay ci bis bi rafet na lool ñi leen di sant soxna Soda Diop daayira soxna Maam Jaara soxna satu Mbow soxna Xadi Kan soxna Mariama Konte soxna Anta Fall soxna Khady Guèye soxna Ndey Jum soxna Ndaama Mbeng soxna Mam Jaara Fall soxna Faatu Njaay ñi ñépp teew nañ ci barab bi imaam Jóob moom it teew na ci barab bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi leen nuyee di leen gërëm di leen sant ci taxawaay bi ñu ngi nuyu parrain du jour ak ñi mi yónni ci bis bi ñu nuyu suñu invité d'honneur yi bépp invité bu nekk ci salle bi ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci taxawaay bi ndax woote ñu wuyu la dafa neex kon amuñu seen fay ñu ngi nuyu parents d'élèves yépp bàyyiwuñu kenn ak bureau bi wane ngeen ni bis bi seen bis la bi ñu jàppee jour bi ba léegi noppalu wu leen benn yoon ku ci nekk yaa ngi ñëw sa yéene ak sa doole ak sa xam-xam sant nañ leen bu baax a baax di leen jërëjëf man nag dama fi taxaw en tant que vice-présidente des parents d'élèves di wax ci turu président Pape Ndoye moom mooy président parents d'élèves yi di waxit it ci turu ressortissant yi ndax man fii laa nekkoon fii laa jànge ba tey sama doom bokk ci ñu doon tari kon damay wax alhamdulilahi rabil alamin sant naa yàlla bu baax a baax sant sëriñ xaadim sëriñ xaadim njaay man aw ma sa fay yaakaar naa ni eh, honoré nga sa engagement ak man ndax ku jàngal yaay jàngal doom kooku amoo fayam sant naa la bu baax di la gërëm di ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay ci sama bopp laa koy tàmbalee ñu gën a góorgóorlu gën a jo gën a valoriser daara alxuraan yi waaw loolu laa amoon ci lu ma lay lu may wax kàddu bi xam naa ne du du du du bëri nañ ko yemale fii ñu soñu leen suñu projet tubaab bi ñu ngi ciy ñaawoo ñëpp comme ni ko sëñ bi waxee léegi xeebuñu kenn ñu ngi woo doole ñëpp xelu ñëpp kuñ ci mën a jàppale ñu jàppale ñu ci bëgg nañ daal balaa déwén incha allah ñu sanc ko baax na jërë ngeen jëf.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 القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسبحان جدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا الميزان حسبك صدق الله العظيم jërëjëf sëñ Mouhamed bi neex na lool fukki aaya yooyu ak ñett doyaluñ ci woon nag waaye waxtu wi moo ñu xoj ñu yàlla yàlla def tawfiq te defal la alquran ju ak xam-xam bu yaatoo yaat tegu ci jërëjëf ma ngaa dellu sa barab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 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا jërëjëf صدق الله العظيم بارك الله فيك ما شاء الله njàng mi am na solo neex na lool waaye nag ñu ngi lay jéggalu bu baax ci waxtu yi rek moo ñu xaw a xoj soxna Kumba Aysatu Lay way juróomu góor muy sëriñ Abdul Ahad Lay way juróomu jigéen soxna maam Jaara Sarr mi ngi toll ci fukki at mi ngi gën a àdduna le 18 premier mois 2012 soxna si ibda i baada aoudu billahi min alsheytan arrajim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 فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الهبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات jërëjëf sadaqallahul azim macha allah neex na loolu soxna Kumba ngi lay jéggalu ci waxtu yi nga xam ne moo ñu xoj di la ci yow asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ wu góor mi ngi tudd sëriñ sagol nduur way jële mu jigéen tudd Soxna Khady Guèye mi ngi gane àdduna le 26 deuxième mois 2010 sëriñ bi qara lana baad aoudu billahi min alsheytan arrajim ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بسم الله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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان من أهل الكتاب من صياصيهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن وكان ذلك على الله يسيرا حسبك صدق الله العظيم تكبير kon ñoo ngi sàkku ci al imam Serigne Khadim Ndiaye mu ñëw li nga xam ne moom moo di eh, kàddoom incha allahu taala bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث معلما والقائل صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه mbokki jullit yi mbooleem ñi fi teew maa ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd nuyoo bi ñu yàlla tànnal te moo di assalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu ginnaaw loolu ñi ngi jiital ci nuyoo bi Sëriñ mustafaa Mbàkke bi nga xam ne moo fi teewal suñu sëriñ suñu lépp seex mohamadul bachir ibnu cheikh mohamad fadal radiallahu anhu sëriñ moustapha mi ngi ànd ak waa kër gépp njaboot seex mohamadul bachir ñi ngi ci jataay bi euh, duñu lim sëñ abul baraka mi ngi dend ak moom euh, soxna yi itam macha allah muy njabootu Cheikh Mouhamadou Bachir gu jigéen ñoom itam ña nga ne teew ñoom ñëpp waa kër Cheikh Mouhamad Fadalit buñ tuddee Cheikh Bachir rek mën nañ ne tudd nañ ñëpp waaye sëriñ Mamor rahimahullah mu sëñ Fàllu yabal na doomam ñëw na sëriñ Abdul Karim mi ngi nii toog bu Cheikh Mouhamadul Moustapha Fadilu Mbàkke kon ñu ngi koy nuyu El Hadj Falilou Mbacke mi ngi nii toog ñu ngi koy nuyu ñooñu ñëpp mën naa ne bu ma nuyoo sëñ Bachirou rek dugg nañ ci biir ñeneen sax dugg nañ ci waaye lin waxante woon ak organisateurs yi muy gàttaay biñ ci bëggoon ndax bañ a téye nit ñu lu sori moo tax gis ngeen niñ def programme bi am na lu bari luñ bàyyi ndax yërëm nit ñi ci toogaay bu yàgg bi kon man itam danaa ci jéem bu ma ko mënut à cent pour cent it ma wàññi bu baax ba nga xam ne gàtt gi dañ ma koy jéggal te xam ne leeral nañ ko bala maa jàll maa ngi nuyu ki nga xam ne njabootam a ngi teew muy Cheikh Mouhamad Makhtar Bintaloo ñoom re danañ ci ñëwaat délégation bu mag di ay boroom xam-xam ñëw nañ indil ma sax liggéey boo xam ne Cheikh Mokhtar Binta ak dundam ci wàllu xam-xam ak li mu réalisé ñu xalifa bi joxe ko ñu indil ma ko di nuyu itam ñi nga xam ne ay invité lañ invité yoo xam ne dañ leen a terale ne mboolem invité yi yëpp bu fekkoon ab bunt la bu ñuy duggee dañ naan léegi yéen dugg leen ba noppi ñi ci des ñëpp topp ci yéen ànd ak ñi ñu mën cee tudd ki nga xam ne mooy alxaaji ibrahima faati moom it daanu ci ñëw xëy na duñ fa yàgg duñ ca guddal di ko nuyu bu baax alxaaji moodu silla bu waa di ko nuyu bu baax moom itam di ko sant incha allah daanu ci ñëw xanaa daañu ci ñëw yi ñu bari danañ wax ne kon xanaa dana gudd waaye dañ fay gàttal bu ñu fa eggee euh, mboolem ñi nga xam ne nii Euh, dara jaale nañ leen bis bi ku mel ni El Hadji sekk Seck C3S euh, a ngi nee di Serigne Fallou Seck di suñu xarit di kenn ci ñun di suñu mbokkum daara ca daara ja waaye ñu ñëwaat àndaat fii àndub alquran bi ma nga ca yokkal ma jaay la ja waaye teewul nag liggéeyub alquran bi itam kenn mënu ko ci taxawaay bu am solo ku seetaan concours c 3 nga xam ne moom la Serigne te ca kanam. mu ànd ak ñun liggéey boobu ñu ngi koy nuyu di nuyu sëriñ kon mbooloo mi yépp ñu ngi leen di nuyu waaye bureau parents d'élèves yi nag dafa am benn révolution buñ def mooy yëngalaat daara ji yëngal boo xam ne man dañ ma soññaat soññ boo xam ne yaakaar naa bu ma amoon waxtu yu ma daan dallu dama ko wàññi ñemeetuma koo dàllu lu metti metti ndax gis ne lii moom Euh, kenn mënta ànd ak ñoom di dox ndànk te monsieur Pape Ndoye jiite ko di koo xam ne kenn la ci ñun euh, di jëwriñu sëriñ maam Thierno dara di sunu mbokk waaye di sunu mbokkum daara ñu bokkoon ca daara ji ak sëriñ Fàllu mi muy nitu yàlla di ku baax koo xam ne moom booleek booleeg jëwriñam ji waaye ñu mu ñëw mat sëkk taxaw taxawaay bu am solo ci daara ji sëñ si la ñoom ñii nga xam ne ñoo jiite woon bureau bi El ma Makodde mi nga xam ne kenn mësu koo man ci daara ji El Hadj Fadilou Sabo professeur ñooñu ñëpp bi Pape Ndoye ñëwee daf leen a boole ci conseil bi waaye nag mu yanu liggéey bi ànd ko ak jigéen ñi ak yeneen góor ñi ku mel ni Ibrahima joom mi nga xam ne moo nekk secrétaire bi ak ñi ci ginnaawam ñëpp. soxna yee ku mel ni soxna maam jaar a saar nga xam ne ñaari doomam a ngi doon tari soxna maam jaara sàmb mais moom itam jaar na fi ba jël kàddu moom mooy jigéen ci njëkk a bind kaamil ci sama loxo jàng ba bind ab kaamil continuer jàng xam-xam di jàng école ba tey mi ngi ci microfinance di di li di ca liggéey jël doomam indi fi eh, sëñ Fall ñi ngi lay sant ci sa taxawaay bu fekkoon amoo taxawaay bi nga amit bu ko soxna si amee du tax li ngeen am ngeen am ko kon ñi ngi sant ñëpp bu baax a baax ñi nga xam ne tam ñooy suñu mbokki daara yi ñi nu bokkaloon organisation bi sëriñ Mbàkke Sourang imaam Mouhamad Diop euh, tabaarakallahu El Hadji Omar Seck bu ma limee du ma matal mbooloo lañ moo xam ne damaa xam ne rek ñoo bokk liggéeyu alxuraan bi ñu ne ci maydaan mi concours Sénico bi nu bokk réunion ñooy concours c nu bokk réunion yi ak liggéey bi ma gis ne kon ñii liggéey bi seenub liggéey te xam nañ ko ñoo ma ko gën a xam ma ne leen ñëw leen nu bokk waxtaan dañuy waxtaan ba wi di tëral programme nan la ñuy def ba bis bi jag kon bu ma ci tuddee kenn yaakaar naa dana yóbbaale ña ca des ma taayee lim su ko defee kon mbokk yi dañ may may tuuti ndax benn xale bi ci des moo ñuy ñaanal incha allah ñu yewi ko ginnaaw bu sëñ Modou si la jooxalee euh, kàddoom Cheikh Makhtar Bintaloo mbokk yi nga xam ne ñoo ko teewal di njabootam damay wax ci moom benn baat rek ndax buñ nee moom lañ ko paree neel sabab bi lu gudd la waaye tuuti laa ciy wax dafa doonoon xaritu sama maam sëriñ Modou Mokhtar Ndiaye mi jur bàyyi sëriñ Përi Ndiaye xaritoo goo xam ne ak mbokk yi da caa nekk yàlla dogal sëñ Modou Khari joxoon wasiyaam dénk boppam sëriñ Maxtaar Bintaloo nga xam ne bi mu génnee àddina sëñ maxtar Binta moo ko taxaw loolu ak kóllëre la waaye muy lu lu bari am ca lu bari topp ca itam ndax sëñ Modou Khari Sow fajar wala guddi gi mu génne àddina jaaxle na nu ñuy def ba yëgal ko sañ Maxtaar Bintaloo ndax booba morgue fu bu ñuy denc ak dara amul waaye ñu xëy jublu ci di ko waajal génne ko ci yor yor bi biñ daataan sang ba noppi sëñ Maxtaar Bintaloo gëléem la war egsi ñu gis ko bi mu dikkee wàcc laaj lan la ñu wax ko xibaar bi ñu waajal sëñ Modou Xari soow ba noppi ba war koo denc ba war koo jullee xam ngeen ne am na fóore ju fa nekkoon di doomi baay baay di kilifa dëkk bi ñu koy wax xaadi moor bese xaadi moor bese moo bàyyi maam xaadi ma jaxate kala ñoo bokk bàyyi muy ab jigéenam maanaam maanaam nday bese jaxate mi jur xaadi moor bese mooy mooy jigéenu maam xaadi ma jaxate kala mu raw fi di fóore te it moom taalibe cheikh la te kii ab cheikhu murit la te kee la joxoon wasiyaam waaye teggin ak warmaalante kenn ñemewu koo déey ne ko kee la waxoon nangam ci boppam mag ñi ne nañ bi ñu defaree sàppe si ba mu jekk xaadi moor bese joxañ sëñ maxtaar bintu loo ne ko demal taxawe ko sëñ maxtaar bintu dem taxawe ko nga xam ne foofu yàlla moom dafa am lu mu xam am na yooyu yàlla xamu ko ñun nag noo ko xam sëñ Moxtaar Bintaloo moo ko taxawee jullee ko ginnaaw ba mu jël sëñ Mor Gàmmo mi nga xam ne yéen ñii ñëpp xam nga Cheikh Moustapha Bachir xam na ko sëñ Mor Gàmmo mi di taawam mu jël ko yóbbu ko ñoom rek fekk muy door a am samp kër ba am ñaari ñaari doom képp sëñ Cheikh Mor Gàmmo ak ku jigéen muy soxna Faati ba mu ko yóbboo nekkoon sama doom jii muy sëñ Xalifa moo nekkoon sëñ Xalifa ak sëñ Amidun Lo am na keneen ku leen ñetteel mu ne ko seen àlluwa laa bëgg nga eggaleel ma ko Baye Mor gàmm moo leen eggaleel seen àlluwa ginnaaw bi nag Baye Mor damay dellu miri na ndax dëkk ba duma ko bàyyi mu gent sëñ bi wax wax ba koo mu ne ko damay dem loolu la ñibbisee miri na kóllëre googu loolu moo tax ñu tudde Seex maxtar Bintaloo bi euh, bis bi mu am yeneen yoo xam ne nag ginnaaw bi la te xaju fi te jaru ca egg kon sëriñ bi ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban ñëw nga ci sa njaboot ñëw nga ci say wëllëre ñuy sant bu baax sëñ Modou Sylla moom it bi nga xamee ne ubbi naa daara ji maa fa lal sama bas menn man ba ma xëyee moo fa indi doomam muy muy ab donga muy Alioune kookee ci daara ji la mokkale moo fa njëkk mokkal ci góor ñi xanaa moom it xanaa mook suñu sëriñ sëriñ abul barak waaye ci ñë fa njëkk a mokkale la bokk booba ba fii mu ne kooka noppi na rakkam ñëw fa ba dem ba ñoom ña ngay liggéey seen liggéey waaye teew sëñ si la fu réunion am ak lum sori sori lum guddi guddi dana ñëw bam jeex ak ay yitteem kon kuñ ci tudd rek am na lu tax ñu tudd ko te alquran ji rekk a tax nag bala maa jeexale ci sëriñ Ibrahima Faati mii sëriñ Fàllu Sekk maa ngi lay jottali sama cant ak sama nuyoo ci alxaaji sëriñ Sekk mbokki way yi gone yi barab bii ba mu ko fayee yaakaar naa ñaari weer avant ma di leen wax ne fay na ko moom sëriñ barab bii ñu nekk dara waruñu ci te moom mais muy doxale suñ diggante yàqul dara ndax am na ñoo xam ne ka ñuy déey ne ko nangam mat naa defam déet lu ñàkk kookaaleen ko xañ daa ci wax lu tuuti loo xam ne nii du gënal sëriñ xëy na waaye man dana ma gënal du ko gënal ndax day làqutu te man loolu ab torche la te sëriñ sëñ Fallou mee xam ne ci dara jamono yee weesu lu toll ci ñetti weer kepp mëtagu ko yaakaar naa nit woo ma guddi ne ma suba danaa fa danaa fa ñëw ma ne ko lan la mu ne bu ma ñëwee danaa la ko wax sama kër la kooka ndékkeesee di kilifa duñ ko tudd waaye am na ñu ko xam sëñ alxaaji mii am na lu mu ca xam ma xëy suba mu si ne ma daldi di taal portable am ma doomam joo xam ne ma nga extérieur mel noo xam ne nii photo bi ba ma ko xoolee dama du mooyu mu ne ma dañ ko doon faj te yàlla dogal na fa mu nekk mel na ni clinique ba dañ koo bëgg génne ma bëggoon nag def ay pexe pour évacuer ko indi ko Sénégal te bu yeexee rek musiba dana am ma ñëwoon nag di la ko diis pour ñu waxtaan ci ma jàpp ne xam na ma war na ko wóor ne man lu ma ndekkee sax aw ma ko xëy na daa jàpp ne am na ñu ma xam rek teñ baax bi ma ko waxee jaaxle naa ma dugg sama néeg jooy ba sama xol sedd ma dem jàpp julli ñaar rakka ne yàlla miskin poñe na faqiir noonu laa ko ko waxe làkku may arab yàlla miskin poñe na faqiir aw ma pexe sëñ Modou Rachid daan wax ne yaa ma tax a jóg tenewuma la du tontam sama xel dem ci loolu bi ma egsee sama xel dem na ci ñu bari ma am ku ma diisoon sëñ alaaji mi ci la bokk diisoon na ma ak keneen ma bëggoon coppet coppetee ko kenn ku ne ci ñi xam ñu wax la ko loo ca def waaye bi ma ko yónnee sëriñ vocal kii bi vidéo bi daa di koy vocal wax ko ko wax ko montant bi nga xam ne moo koy évacuer ak la ca aju mu ne ma lool am na fi yónneel ma daal di tijji néeg ba ñëw ba ci waa ji saal bi ma daal di sujjóot moom it mu sujjóot bi ma siggee mu ne ma dangaa sujjóot di sant ma xam ne rek mbir mi daa faju ma daal di yónni sama chauffeur mu dem ba mu daataan dem fekk ba da egg fekk na ko jox na ko sëñ Fallou mais enveloppe bi bi mi di daataan jot enveloppe boobu ñëw na bu diis ndekete kooku génne gañ ko bëggoon a génne daa mënatu la fay moo tax ñu bëgg koo génne waa ji doon def ay démarche pour dem jëli ko waaye mu mujj yàgg ñu téyewaat ko mu yónnee xaalis bu mag ba nga xam ne kookee faj ma macha allahu léeg-léeg fu mu toll ñu yónnee ma vidéo yi sama xol sedd ma jàpp ne kee daani gëj naa ci xam dara pendant lu mat un mois waaye jàpp naa ne man ne am wér na mbokk yi lii ku la ko defal lii ku la ko defal kenn da nga daa amati fayam xam na ne xam naa am na ñu ma xam jaaxle na nelawut ñëw kon sëñ fàllu ñu ngi ñi ngi lay jottali suñu cant ci El Hadj Serigne Seck El Hadj Ibrahima Fati ci laay jeexale Cheikh Mouhamadul Bachir sama sëriñ sama soppe sama lépp moo ma booleeg moom dafa dem kër sëñ Bas am na ñu ma wax ne sëñ Abo mee la gis muy jàng muy wëla réew sëñ Bas di fa dem lu bari mu ne sëñ Bas damaa bëggoon de lii ma gis samay gone man ko ma nga dëkk ca Kerawaan ca wetu Kolda yaakaar naa trent kilomètres wala vingt cinq kilo trente cinq kilomètres diggam ak Kolda soriwul di nitu yàlla yore mbooloo sëñ Bas ne ko bis boo ci jubloo rek toog na diir doog a am ku mu indi doog a am ku mën a jàng mu indi kenn ba mu dikkee kooka sax déggut. benn baat loo ko wax du ko xam mu indiwaat ñeneen nu di ca góorgóorlu di ca nab nabi ginnaaw daa am ay taalibe am ay mbokk ami rak daanaki mujj daara ji satire ci anam googu diis na ci moom te ñépp moo koy fayal buñ ko laajee lépp dana metti te buñ ko wàññee daara ji dana wonk nuy jéem di jéem di jéem di dox muy jàpp nuy jàpp ba am wuur bu mokkal beneen wuur mokkalaat dem bay jàng xam-xam ñu waxtaan ma gis as ñal aw yoon ne ko mën naa laa wutal jàngalekat jàngalekat bi ñëw sa kër ne ca dëkk ba di jàngale teewut nag moom nanguwul sax maanaam ñi fi nekk moom ñépp dem fi may waxee lu mat seize personnes a ngi ci daara ji waaye nanguwut yëpp dem mu ubbi daara jooju ma jox ko jëlee sama rakk doomi baay ji li njaay mu dem këram di ko jàngaleel nekk fa ba ñibbi Touba ma yó jëlaat Touba jàngale jàngalekat yónnee ko kooka nekk fa ba jóge fa doomam taawam moom mii macha allah moo yor daara ja léegi ak ñu koy jàppale am na ñu fa mokkale indaale na leen fii ci bis bi daara ji am na ñu jóge bi am na ñu jóge Guinée am na ñu jóge biir Casamance. ma bind programme mu daaru tansil jox leen ne leen damay ñëw di ko saytu daara ji jenn daara ji la ay at boobaak léegi bis bu set Cheikh Ibrahim di gën a jàpp di gën a wane ak bëgg kon fawuñu ñu beral ko cant waaye faawu ma sëñ sant sëñ Bachiru mi nga xam ne loolu ma am te jàpp ne loolu yàlla mën na koo nangu te ku baax la bu bu bu matutit moom dana nangu lu mat ak lu matut ndax moo mat loolu sëñ Bachiru laa koy sante moom mi ko jaarale ci moom kon loolu ab cant la incha allah li ñuy ñaan mooy ci kanam tuuti ñu invité leen conférence boo xam ne kerewaan lay amee kaang ya tarifa xasida yaa nga fay jolli bu guddee ñuy def ñuy def guddig alxames guddig àjjuma gone yi ku la ci yëkkatil xasida sa xol sedd loolu ma ci am sëñ Bachiroo ma ko jox ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala kon Cheikh Ibrahim yaag sa mbokk yépp ñu jógee Casamance ñu jóge kone bu mën a doon ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon xam naa ne euh, gudd na bëgguma ko woon waaye mënutoon a ñàkke noonu kon xam naa ñu jox kàddu gi sëñ alxaaji mu eggale liggéey bi ginnaaw loolu nag soxna yee moom ñi nga xam ne ñoo dëkk ak man ci géejawaay moo xam présidente yi la moo xam président yi la délégué imam yi maa ngi leen di jagleel seenu cant ndax donga ni mu naqaree dëkkal te kenn du la ne donga bi damaa li daf maa sànni xeer daf maa mbëllee daf ma nàngam xamal ni dafa muñ waaye donga yaa ngi koy def ndax dañoo mën a tooñ ñu boole ca nag di ñëw di seet si daara ji bu ñu wootee ñu wuy si kenn amul seen fay waaye ñi fi indi seeni doom nag lun am yàlla nañ ko bokk auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokk taalibe yi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di jiital nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk monsieur Abdou Karim ñu ngi lay nuyu monsieur Moussa Falidou di nuyu njabootu Sëriñ Moxtaar Bintuloo gi nga xam ne ñoom lañ tudde bés bi ak mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi góor jigéen mag ndaw ñoo ngi leen nuy turu Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Mouhamadou Fadi taxawaay ndax bés bi lépp lu ci waaye jàpp rek moom Serigne Bachir bu ko defal ndax taxawaayam ci digganteem ak Serigne Xaadim ak digganteem ak alxuraan ndax moom yàlla dogal na yëngoo bépp ci alxuraan la ko jëmee Serigne Xaadim bokk ci njaboot gi bokk jàmbaar yi nga xam ne ñu ngi koy jàppale ci toolub lislaam boobu bu nekk taxawal ko ci taxawaay yu wóor kon ba bi ñëwee lépp lu ci waay def rek moom sëñ Basiru mu ko defal kon njaboot gi bu ngeen demee ngeen wax sëriñ Fàllilu sëriñ Basiru mi ngi koy nuyu bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ci teewaay bi si Abdou Assis ak njabootam gi fi teew ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di la jox seen wàccuwaay kàddu yi yu gàtt lay doon rek ndax li watoon a wax sëriñ Xaadim wax na ko waaye dañoo tollu nu ci waxtu woo xam ne képp ku taxaw di jàppale alxuraan warees na laa soññi warees na laa dokkeel bu baax a baax ndax fi àddina toll ci yàqu-yàqu jàpp nañ ne alxuraan rek moo ko ci mën a génne te noonu lislaam yi tàyyi wuñu fu ñu toll ñu ngi songu alxuraan ci wet yu nekk ak gu nekk kon lii nga xam ne ñu ngi koy def war nañ koo fonk war cee gëna taxaw bu baax a baax ba bis yu mel nii bu amee lislaam yëg ci ndax ndax ñi nga xam ne ñoo féetewoo àdduna seen bés yi ñuy def lu nekk la leen jaral kon ñun waa lislaam alxuraan war nañoo lu nekk ba bis yi bu ñu ko wootee ñu taaral ko taar boo xam ne dana danañu xam ne ku nekk ci dëgg waroo ragal dara kon ñoo ngi sant mbooleem ñooñu aw lislaam rawatina yi yëngu ci alxuraan di leen soññ ñu gën a jàpp bu baax a baax ot song yi bari bari atu sotti ndax suñu borom moo leen wattul boppam kon nañu ñemee te dox te xam na loolu rek mooy soññ waajur yi ñoom itam ñu gën a dolloo njaboot gi ci diine te loolu dara jiitu ci alxuraan ñu yóbbu leen ñu jàngi alxuraan te bàyyi leen ñu jàng seen diine ba xam ko lu ñu leen di def loo ñu doon leen ko defloo waaye gone goo dugal ci daara mu jàng alxuraan ba mokkal ko bàyyiwoo ko mu jàng diine xanaa nga yóbbu ko mi ngi mel ne nawet jot nga jël sa dugub jikko ba mu ñor nga góob ko def ko ci sam sàq su boobaa de am nga dugub waaye nag nañ koy jariñoo eggagoo ca mooy des na bojj ko des na wal ko des na defar ko ba mu mat cere loolu nag boo nekk li fekk jàngul diineem eggul foofu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne alxuraan ji baax na waaye nañu ko bàyyi bu baax a baax nañ bàyyi xel gone yi ñu bàyyi leen ñu jàng seen diine bu buñ ca noppee nag lu leen defloo doon leen ko defloo kon sëriñ bi mi ngi ciy soññee bu baax a baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo jàppale sëriñ Xaadim ci daara ji muy waajur yi ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp lim na leen ñu jàpp ci bu rawatina Cheikh Ibrahima Fadi mi nga xam ne day wallaraw sëriñ Bachiru ñëw fa gis liggéeyub diine bi sëriñ bi nekk mu xemmeem ko ba tax mu jël doomam indi ne ko lii nga fekk fi day taal bii ci laa bëgg sëriñ boole ko sëriñ xaar yi mu taxawu ko ba fi mu toll nii daaraa ca këram ca Kayrawaat dem naa fa ay yoon fekk gone ren yi am na ñu fa bokkale loolu cant yàlla mënu ko fete ko Cheikh Ibrahima sëriñ bi nee na mi ngi day sant di la gërëm di gërëm sa nijaay bu baax a baax te ne yoon waa ngi noonu rek lislaam moom fépp la war a jolle rawatina njabaru Cheikhul Xadim alxuraan jaa ngi noonu yoon waa ngi noonu sëriñ baa ngi lay sant mi ngi lay ndokkeel bu baax a baax soxna yi sëriñ bi mi ngi leen di gërëm yéen tam seen taxawaay ak seenu jàpp ndax jàmbaar ngeen ci diine ji lool lépp lu diine wootee jigéen ñi daanaka ñoo ca man kon ñoom itam ñi nga rafetlu seen taxawaay ñi ngi soññ ñëpp ñu gën a jàpp sëriñ baa ngi gërëm ñëpp di ñaan suñu boroom fi yëngu yàlla na ko yàlla gërëm lépp lu wax yàlla ko suñu boroom faj tànk yu ñëwee ak yu ñu delloo yépp yàlla na ko yàlla def muy aw yiwu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen ndokkeel bu baax a baax kàddu yi mënoon naa gën a gudd waaye ñu yemaleeg foofu te di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah Ibrahima Suwaane way gërëm bu jigéen mi ngi tudd bi iqra min qawlihi ñoo ngi ñoo ngi jéggalu sëñ Ahmad Yadaali balaa tàmbali ñu leeral na rek li li des jataay bi mooy bu jàngee ba noppi am na ñi fi teew kilifa yi bala ñoo dem dañuy sàkk ñu joxeel ñu uh, diplôme yi joxeel ñu ñu doon tari diplôme yi waajur yi it mën a joxe seen i seen i yi ñuy waajal ca loolu nag mooy teraangay xale yi nga la waaye nañu ko bàyyi xel ñoom ñoomam bis bi ca nag mbir yaa ngi ci mujj gi bu ñu dem ba ñu fi ñu leen war a terale ñu woon leen ginnaaw nañu nañu nañu rek incha gunge leen ba seen xol sedd ba ñu jeexal tàkk ñu doog a dem ndax bu ñu leen wanee ginnaaw ci diggante boobu rek ndeysaan dañuy xaw a jaxasoo kon ñoo ngi sàkku ci mbokk yi rek ñu toog àggale e, ba tartaraange xale yi mat sëkk jërëjëf boobu leeral googu am na solo lool insha allah sëñ Yunus iqra min qawlihi tabaraka wa taala baad audu billahi min alsheytan arrajim fanabadnaahu bilarai wa huwa saqim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 بألف أو يزيدون ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا وإنهم لمحضرون سبحان شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا téere borom bi tabaraka wa taala di lu rëy nag soxna yi ñu ñu dal tuut rek soxna yi te ngeen a dal tuut rek àggale àggale yóbbu yiw yi bu leen dem ba ci ba seetle bu mujj bi boo ñu bañ ngeen bañ ko fekke waaye ñu dal tuut rek sëriñ Mansour Sidi sëriñ Mouhamadul Amin Sidi kon sëriñ Youssoufa Ndaw mi ngi nii ak sëriñ Younus Sawaane sëriñ Youssoufa Ndaw ak sëriñ Younus Sawaane mën nañoo jege si ñi ngi sàkku alxaaji Makodde Ndiaye alxaaji Makodde Ndiaye mu joxal ñu leen seeni diplôme alxaaji Makodde Ndiaye teel fee ñëw loolu wax dëgg yàlla ci ñu njëkk ci barab bi la la bokk son sëñ Maxtaar Bintaloo ñoo leen di jox daa bëgg ñu bel ñu mujj ñoom ñu mujj kon sëriñ Moussa Seydi ab diplôme sëriñ fallu Mbacké sëriñ Fallou xam naa day ñëw dend ak yow nii rek du jar muy bu yéeg bi naree metti sëñ Fallou waaw photographe yi mën ngeen di ñëw fekk ko fi kaay fekk fi sëñ bi fii yàgg na